asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo mbokki internet yi vidéo bi jox ñaar xibaar laataa loolu nag am leen a ñaax rek xam nga donc pour ñu ko defagul moo tax ñuy wax.

tiro bi ñoo minute ci benn coup bu de mais coup franc magnifique moo tax daw ci ci ci franchement nax na goal. bi donc mu et je pense que tactiquement parlant bu Pap tactiquement c'est pas mal même si je dirais benn équipe bu bu dabo à comme philosophie teg téye position mais il faut savoir que équipe bi ñu dalal équipe bu dëgër la équipe bu métier dañoo jóge si ay kii donc seen i match yëpp la ñu seen seen seen seen quart de finale bi tey xam nga donc tactiquement dafa métti tàng ba pare donc match bi woon tëgg dama naa bu xamante ne presque abouti malheureusement après le gars yi égalisé xam mais tactiquement parlant j'ai trouvé que tamit sonal ñoom même si kii def na quelques arrêts kii euh, suñu gar suñu gardien bi Alioune Badara Fati mais su tiré bi Alioune Badara Fati su dix tir dama entraîné waat bii de parce que euh, bon dans le futur jàpp nañ ne war na mën a ñëw équipe nationale du Sénégal mais il faut travailler ça si gardien moom lépp mënoo ko mën quoi mais dix tir voilà je trouve que day dem quoi ñooñ sax dañoo naawal bal bi mais voilà quoi heureusement yàlla def na si jàmm on est on est qualifié en demi-finale on espère jël coupe bi concernant Ben Lamine je trouvé intéressant jusque li ma ci il faut muscler son mais bon pour taf taf de me fait passer un peu tout le temps yenn les quoi gauche mu dem droite non non dribbler quoi donc j'ai trouvé ça intéressant euh, très serein derrière euh, Moutarou bon voilà wax mais tireur bi bi yalla def na ci xam nga def na ci jamm ñu mën a qualifier et li tamit ben pour man euh c'est un point bu xamantene ne à noter mooy que Sénégal léegi désormais bu ñëwee tireur bi dañuy gagner faut savoir que bu ñuy mujjé faut savoir que final lañ demone ndaysan ci côté mo ne entraîneur bi bobu euh, tireur bi lañ mais ñu commencé gagné ay ay tireur bi donc c'est toujours intéressant mbokk yi bu ma jógee si si équipe nationale du Sénégal je parlé de Pape Matar Sarr qui impressionne Conte parce que c'était pas évident le fa là ni ñu impressionné fa lañ ko teg tey dañu doon ñu doo 6-3 ñoom ak euh, All Star game euh, Corée foofu noonu xam donc 6-3 euh, moom muy dugal à la 45e minute donc am na temps de bu day mais c'est est du foofu lay impressionné qui di Conte xam même si match bi dinaa si ñëwaat defaat leen vidéo parce que foog ma gën a xoolaat match bi carrément xam tout ni au bout de ay LCC ngay am ni mais bon bo jël ce temps yi nga xam carrément dina leen ko noter defal leen ko vidéo mais. à l' entraînement la ñu wax ne da ko da ko noté parce que l' entraînement bi ñëpp ko publier Angleterre dégg naa compté dawloo dawloo dawloo ba ñu sonn maanaam entraînement yi moo tax physiquement parlant def leen wàcc parce que nee na moom ñëwul pour caaxaan dafa ñëw pour jouer léegi rôle mag foofu euh, fële premier que ça soit Ligue des champions que ça soit euh, championnat maintenant nag kii di Pape Matar Sarr bokk na si ñi gën a taxaw ci entraînement la wax maanaam ñi nga xamante ne saa bu ñu noté cinq jours moom dañ leen génn dem toggee ne ñi moom ay jàmbaar lañ Pape Matar Sarr dañ ko siy boole maanaam entraînement da ko dékku te pourtant boo ko gisee nii physiquement na mais xam nga jàmbaar la xam ne ne bu mu demee foofu xam ne ne fii gars a fu ñu ko temps fan la ñu mën a xëccoo ko moom mën ko raw si côté doole si côté physiquement parlant si côté affaire yooyu dañ ko mën a ëpp saa yi répondre présent et c' pas pour rien c' pas pour rien ñu boole ko si

kii di euh, Pape Matar Sarr mën na jouer euh, Tottenham parce que Conte ku dëgër bopp la te entraînement bi yow ku ko ku ko waa Inter ak ñeneen ku si génn rek yow saa yi jàppal ni si génn moo tout temps ay équipe am ne boo kenn xaaru ko mu fël la moom tout le temps ay équipe am fu mu jaar xool leen day am benn jour bu xamante saison boobu kenn xaar ko mu def ko parce que moom voilà moom day mettre ñëpp place ne ku nekk nañu xeex suñu place ku xeex mën nga am mérito ñu ñu bu la gisul samay samay mbir nag ma baale nga dem mais Pape Matar Sarr man maa ngi am yaakaar ne di ko toog Tottenham mën na fa ne boppam mbokk yi ma nekkoon vidéo bi maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV.